mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di siyaare sunu kilifa gi toog di Cheikh Mohammed Fadel Mbaye di ko ñaanal ak yàgg ak wér lim yéene ci njaboot gi yëpp mu tal ko te man ko fekke ko di dooley borom Tuuba ñun njaboot gi dañ ñu ciy tudd rek waaye ñoo ci gën a nekk ndaw dañoo nekk seen ndaw rek waaye kilifa gaa ngi nii toog di sëñ Fallou ta moo moome lépp mu ne woon nanu bàyyi bis bi tey nu bàyyi ko lépp it ci ndigalam lañ koy defee ndax nit ku nekk da am kilifa te moom mooy sunu kilifa kon ñu ngi leen di fàttali bis bi bu baax a baax bismillah dañu ko baaxoo def di ci sant ak ñaan ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Sam ak mboolem njabootum xam Seex waaye di ñaanal sunuy wayjur di ñaanal mboolem ñi nga xam ne fàddu nañ ñëpp di leen ñaanal ndax ñëpp xaj nañ ci ndax li ñu ciy jàng ci limub alquran ak xasida ak salaatu ala nabi ñëpp xaj nañ ci kon yàlla na yàlla nangu lépp te may nunu fekke ko te tal ko te kenn bañ a manqué su ma limee nag damay juum waaye woonaa samay xarit woonaa samay bokk woona képp ku ma bokkal lislaam ji képp koo xam ne mas naa laa lebal bis bii maa ngi lay ci woo nga ñëw fay maci ci koo xam ne it mësuma laa lebal maa ngi ñaan nga ñëw lebal ma ci kon bis baa ngoog le 19 janvier ci lañ koy def kon ñu ngi fàttali ba tey xam le ne bis bi dañu ko dara jaale Serigne Cheikh Mbacke Ramata mu baax mi nga xam ne dafa nekkoon fii nek fi nekkin rafet ak ñun doon sunu mag doon sunu lepp yalla dogal mu dëddu nu amon yene fatale ko nyanal ñaanal ko ci ndax ñaanal ko moy ñaanal sunu bop ñu xam lene ne jox nañ ko ci cër ngir dara jaale ko way tudde ko Serigne mbay jang ak Serigne jaga jang mi nga xamne ne way jur lañ waaye sunuy maam lañ nekkoon fi ci koñ bi nekkoon fi ñu baax a baax ñoo xam ne seen taxawaay ñëpp rafetlu woon nañ ko di leen fàttaliku ak di leen ci ñaanal ndax bis bi dañ ciy def lépp ci lu baax ku ne xaj na ci ñuy def nag at mu jot ñu tànn benn famille tànn benn kilifa boole leen ko at yi yëpp loolu la ñuy def ren loolu mooy li ñu tànn ngir nga xam ne bu ba àgg ci bis ba ren am na coppite tuuti coppite gi mooy dañu daan julli timis rek def cérémonie bi waaye ren dañoo bëgg a teel a def bernde eh, vingt et une heure vingt deux heures ñu door a génn ci base bi ndax dañu gis ne ñaari ndaje yi da daan métti ci nit ñi ñu bëgg koo def benn rek vingt deux heures jotee ñu tàmbali programme bi bi cérémonie bi jeexee ñu daal di continuer xasaayid yi ba fa ko yàlla yamala rek ñu yam foofa kon loolu mooy li nga xam ne mooy ci am ak coppite ñu ne suba la nag dañu amal fii ngontum durus xasaayit ak alquran ci ngoon gi nekk ci nekk ci ba timis jot bu ñu julee timis nag waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom nga xam ne dañoo amal yéene seen bopp ci bis bi ñoom ñu leen ci woo ngir ñu ñëw tuddal nu yàlla nanu ko daan defee ba guddi gi xaw a sori ñu dem noppalu ji bu ñu xëyee nag door a tàmbali programme bi kon daal loolu mooy li nga xamante ni moom lañu nas ngir war koo def ñu ngi ci rendre hommage ñaar nag di soxna Aminta Njaay mu baax mi nekkoon ci koñ bi ak ak soxna Awasi am ne dañu ma bëggoon lool doon ma yittewoo lool bëggoon xasaay yi lool ñooñu moom dama leen ci ñaanal rek lepp lu ma fi def ci alquran ak xasaayid yàlla defal len ko fañ ko fek waye bis bi mom ñi mako tuddé moy ñoo ñu ma ñëk wax moy serigne cheikh ak serigne Mbay Jang ak serigne Njaga Jang kon daal loolu moy li nga xamné mom lañu nasoon ren ma ko ak soppey serigne Sàmba yépp xam ne guddi ak bëccëg noppaluñ benn yoon fépp fu ñu dem ñu fay and ak man ñi leen di sant bu baax di leen gërëm ak mbooleem ñu may àndal ci xasaayid yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh